salaamaaleykum amis téléspectateurs salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo la chaîne Equivox TV tey nag ñi ngi dalal suñu papa suñu xarit ñu war a waxtaane li nga xamante ni moo di g bi nga xamante ni Vox Arena euh, Vox Arena organisé na ko mu war a am incha allah le 19 juin fële ci arène national euh, per Ibou ñu ngi lay char euh, maa ngi leen di delloo ziar di leen ñaanal yàlla yàlla may leen wér defal leen jàmm yéen day yéen a ngi yokk wàññiwu leen ndax ki ubbi télévision te làmb di sunu cosaan jéggaane ko fenn ñoo ko moom ngeen jël seen alal euh, tëgg ay combat fas yéene jàppale làmb kon li ñuy wax naan un bon sénégalais lii la war a jukkowoo un bon sénégalais du wax ne lan la ma réew mi liggéeyal mais danaan lii laa liggéeyal réew mi yéen waa Equivox yéen a nga liggéeyal réew mi moo tax yal na ni yàlla defal jàmm. Euh, papa ba ñu commencé waxtaan bi ñu am combat yoo xamante dañ ko tëgg le 19 ñu jàppoon ko le 9 mais amateurs yi ñoo ni combat bi le 9 bi ñu ko tëgg arrangé wu leen tax parce que mercredi lay doon euh, ki nga xamante ni moo di borom làmb ji fexe ba am datu le 19 pour amateurs yi loolu lan nga ci wax. xam nga euh, dafa am solo lool làmbi amateur ak làmbi supporter bokkul. te ngeen a boole ay kàngam yoo xam ne kenn ku ci nekk yaakaari làmb nga ëllëg aveniru làmb nga ëllëg moo tax làmb ji du làmbi jour ordinaire làmbi weekend la parce que làmbi amateur la làmbi supporter ak làmbi amateur bokkul làmbi am làmbi supporter mën nga koo tëgg jour ordinaire mais combat yii ngeen tëgg ah làmbi amateur la de ndax benn combat bu ci nekk combat bu amateurs yi doon xaar la te amateurs yee ko soxla waaw. comme amateur yi ko soxla ñu commencé ci combat bi nga xamante ni moo war a am ci diggante ki nga xamante ni moo di euh, Tyson de ak ki nga xamante ni moo di euh, Franc bu Parcelles Assainies combat boobu père tey boo ci doon def analyse naka nga ka gisee. daj dëpp gaa ngi noonu ndax dañuy ñaari xale yoo xam ne kenn ku ci nekk yaakaari làmb nga waaye kenn ku ci nekk dafa am foo teg sa bët te ñoom ñaari ñëpp ay xale lañu sarax leen ndongol daara mbaamu tibb ak dooleem dem ba ba ko mbay Gueye waxee ba ko uh, uh, uh, kii kii nu mu tëddi Ibou Senghor waxee ne sarax leen ndongol daara mbaamu tibb ak dooleem dem Mbaye Gueye dafa daf ko dogale ne ko bii sarax dafa tàng kenn du ko tibb ak dooley dem moo tax combat bii dafay combat boo xam ne ñaari xale yoo xam ne kenn ku ci ne yaakaari làmb nga aveniru làmb nga am na foo teg sa bët am na loo bëgg ci làmb ji ñuy ñaari xale yoo xam ne nag kenn ku ci ne géewal naa la bu fekkee ne bëri rek la muy Franc muy Tyson 2 kenn ku ci nekk mokkal nga bëri bu fekkee ne xeex la kenn ku ci nekk jàng nga xeex ba mën a xeex te amateur yi dañu bëgg ay mbër yoo xam ne bu ñu leen boolee ñu xam ne xeex dina am bëre dina am moo tax combat boobu ñàkk koo seetaan erreur la combat boobu mën nañ wax cinquante cinquante la wala kan mooy favori. Euh, amul favori ndax ñaari xale lañ yoo xam ne kenn ku ci ne am na foo teg sa bët boo xoolee Franc euh, bi mu duggee arène dafa wëlbati ko demaat ci mbappat yi di dajeeg luur yi di leen daan tey seen dee dafay mbër moo xam ne mbëru gox la mhm. parce que dëkk spécial ñoo ko ngemb muy xale boo xam ne bi mu jàngee bëre ba pare dafa dem jàngi xeex ba mën a xeex waaye dafa bokk ci xale yi nga xam ne euh, ku naqaree bëreel la parce que du la may dara combat boobu daal ku xef ku xef doo ko gis man loolu laa wax moo tax ma ne cinquante cinquante la amul favori ñaari xale lañ yoo xam ne ku ci daan romb sa morom ku ci daanu xaar ñeneen moo tax combat boobu muy muy muy euh, euh, Frank muy Tyson 2 kenn ku ci nekk di nga ci def sa jom def ci sa fulla def ci sa fayda kii daal nag yàllaa ko xam moo tax daal man cinquante cinquante lay wax amul favori. Euh, en cas de victoire pour Franc lan la ko mën a apporter ou bien en cas de lan la ko mën a lan la ko mën a xaj. lu ne dama ne en tant que victoire dina fekki nag ponkali ci kaw waaw ku ci daan ci ñoom ñaar rek muy Tyson 2 muy Franc ku ci daan am combat boo xam ne dina raw combat bii nga am. ku ci daanu nag xaar ku ci daanu say morom say morom fekk si la parce que lamb ji léegi amatul petit combat combat yëpp grand combat la yéen nag da ngeen a tëgg combat boo xam ne mi ci xelu promoteur yëpp promoteur bu ne seet na loolu man xaw ma nu ngeen def ba décourager combat boobu mais combat bi dàq ci combat yi ci année bii la la bokk parce que dañuy ñaari xale yoo xam ne kenn ku ci nekk di nga indaale mbooloo kenn ku ci nekk di nga indaale jom kenn ku ci nekk di nga indaale staff boo xam ne dinañ topp sa ginnaaw mais kenn ku ci ne nag euh, euh, victoire lay indi moo tax di nga euh, sëriñu làmb garaaw ñaari victoire yi dugg mais benn ay génn waaw kuy ñëw victoire ngay ngay dugg sale ci biir làmb yi mais kii daan nag yàllaa ko xam moo tax combat bu doy waar ngeen tëgg combat amateur ngeen tëgg ndax du combat supporter mm-hmm. amateur yi ñoo soxla combat bii parce que Franck dafa bokk ci xale yi nga xam ne euh, avenir niru làmb la dafa am lu mu soxla ci làmb ji Tyson 2 topp ci ginnaaw Eumeu Sène ci Eumeu Sène rëkk bala ngaa da dal ci kaw Eumeu Sène sax da ngay day ak Tyson 2 moo tax kenn ku ci nekk li ngay indaale ci làmb ji na doy waar de. Euh, man may wax ni combat revanche la diggante ki nga xamante ni moo di Parcelles ak Pikine. mais looloo am mooy diggante Modou Lo rek da ngay indiwaat diggante Modou Lo Eumeu Sène waaw diggante Modou Lo Eumeu ngay indiwaat parce que Franck. Modou loo du ko seetaan mm-hmm. mais Tyson 2 aussi euh, euh, Eumeu seen du ko seetaan mm-hmm. te Modou Lo indi kii kii Eumeu Sène koy indi mm-hmm. ñu jàkkaarloo ñoom ñaar te gisoon nga la xewoon diggante Eumeu seen ak Modou Lo loolu jisoon nga ko ah kon revanche la boo xam ne ah man naa jaare fii nekk loo xam ne lu doy waar lay doon daal moo tax combat ngeen tëgg boo xam ne daal combat amateur la daal ni ma ko mën a waxee euh, ñu jàll ci combat bi nga xamante ni. supporters yi amateurs yi nee nañ moo dàq moo nar a dàq ci G5 bi muy combat bi nga xamante ni moom lañ jagleel sunu papa Alaaji Dieng papa Alaaji Dieng euh, di bàyyi ci ki nga xamante ni moo di Youssou Dieng ñu koy siyaar bu baax a baax di ko nuyu mu doon combat bu nga xamante ni tamit yéen a ko moom muy combat Garga 2 ak Mama Lamine. xam nga combat bi da ngeen ko tuddee Sénégal mm-hmm. du ma wax sax Ndakaaru mm-hmm. parce que Alaaji papa Dieng mm-hmm. c'est mon frère Youssou. sama jarbaat la Youssou maay nijaayam di baayam ndax alaaji Papa Dieng sama mag la alaaji Papa Dieng sama xarit la alaaji Papa Dieng mooy ndakaaru ndax lépp luy sport football na joueur la woon football na fii euh, lu ne te ku ko gën a xam làmb amul fii ci réew ku gën a xam làmb Pape Dieng ndax combat yi mu fekke ñoo bari te jamono ñooy bek ñoom bekaay trois ñoom Mbaye ja Diop ñoom Géej Diop ñoom maam góor gi ñoom Mbaye Guèye combat bu ne Papa Dieng seetaan na ko kon kooku bu ngeen yëkkatee waatee euh, drapeau tudde ko ko def ngeen loo xam ne sax xamu leen ko ndakaaru ngeen tudde lamb ji de juróom-ñaari penc yi ci fukki penc ñaari ci ndakaaru kenn du ko wutee Médina kenn du fa des Grand Dakar kenn du fa des. gël tàppe. kenn du fa des ndax Pape Dieng mooy Ndakaaru. ngeen tëgg nañ komba boo xam ne ñoomit ñaari xale lañ yoo xam ne xanaa xamoo ne kuy liggéey avancement nga bëgg. bëggoo kenn du liggéey bëgg arrière. Mm, moo tax ma ma Lamine dafa am lu mu bëgg ci làmb te gis nga li muy imposé. Mm-hmm. Garga 2 mm-hmm. di xale boo xam ne yaakaar na ne ku mu dajal moo la man mm-hmm. moo tax dafay combat boo xam ne gis nga bu arbitre bi ne far. bu yéexee sañ dóor ko mu daanu arbitre bi hmm. bu yéexee bu soufflé ba pare na def deux par recul parce que bu defee un pas recul kurpañ mën na koo dal ñoom ñaar bu arbitre bi ne far dina daje ñoom ñaar gita ngaasu diggante sukkër bi xatar bi wéele wéng kolma nooju mboot kal padd tequm biir ak tequm biti lu ne dañ ko gis ci combat boobu parce que ñaari xale ngeen boole yoo xam ne combat Frank li muy neex neex neex ak Tyson deux billahi combat bi dàqul combat bi parce que combat bi ndakaaroo ko soxla combat bi ay xale lañ yoo xam ne kenn ku ne am na foo teg sa bët gis nga Mama Lamine bi mu duggee ci làmb jeeg léegi am na fu mu teg bëtam gis nga itam Garga 2 xale la boo xam ne yaakaar na ne ku mu dajal moo la man combat la boo man daal damaa yaakaar ne daal euh, jinne leen dey daal yéen waa Equivox. Euh, ñu taxaw foofu seetlu ci combat boobu nga xamante ni moo di Garga 2 ak Mama Lamine nga wax ci loo xamante ni lu am doole la maanaam combat boobu tey ji yow kan nga jàpp favori parce que ñaari xale yoo xamante ni man fekk naa leen seen bërëbu entraîné kaay xale yaa ngi ci état boo xamante ni allah. xam nga li tax lamb euh, euh, wax ci favori dafa doy waar léegi. xam nga lu tax xale yi kenn ku ci ne am nga foo teg sa bët. xale yi kenn ku ci ne am na loo xale yi kenn ku ci ne am nga staff boo xam ne ñu ngi lay jàppale te daan rek la ñuy gis da daan waxuñ ci dara moo tax dafay combat boo xam ne euh, lii ma wax ci diggante Franc ak Tyson moom lay wax ci diggante Mama Lamine ak Garga Mbossé amul favori xale la euh, ñaari xale lañu ku gën a respecté sa morom yaa moom combat bi waaw ku ku ku ku doyadil sa morom rek ñu daan la jël boo xam ne bu ñu lay daan doo ko yëg moo tax ku gën a jox cër sa morom parce que ji nga nit ki boo ko dee rey génn paaka wan ko ko boo moytuwul mu këf paaka bi jam la ko nga dee nit ki boo ko dee rey da ngay làq paaka bi ñoom ñaar nag kenn ku ci ne li ngay def sa morom boo ko làqee ba at bi soufflé nga wane ko mën ngaa am dara moo tax daal cinquante cinquante lu moom it. Euh, mu doon combat boo xamante ni euh, combat bu nar a metti la parce que kii di ma Lamine buy ñëw Siteu lay àndal. Mm-hmm. keeti garga buy ñëw tamit di nga gis Papa Sow ci ginnaawam. xam nga euh, euh, léegi làmb ji euh, écrit bu nit nekk champion nga ci sa ginnaaw mm-hmm. Papa biir arène sénégalaise la juddoo mm-hmm. ci biir làmb ji fa la juddoo kon kooku dafa doon làmb kon kooku bu jàngee bëre mën a bëre ba ber écurim tey ànd ak xale yi di entraîner ñoom ba bëccëg. te li mu guddul rëyul mais li mu man ci wecc ci bëri moo bari dafa mën a bëri Papa kon bu ànd ak euh, euh, euh, te Mama Lamine di koo xam ne dafa Garga 2 di xale boo xam ne dafay xale boo xam ne day dikk ne maa la man maa la moom day dikk won wane boppam won ne làmb ji fulla ak fayda moo ko ci tax a jóg daan la bëgg Mama Lamine nag dafa naqaree daan moo tax combat la boo xam ne ñoom ñaar ah man daal damaa yaakaar ne daal équipe Equivox TV daal dañ leen a déy daal yéen daal am na ku leen déy parce que combat yi ngeen taxawal. du benn combat la ko commencé ca grand combat ba ca petit combat. du benn combat bu ciy petit combat. combat yëpp grand combat la. combat yëpp bu ngeen ko tëggoon chaque dimanche def ko par benn komba lamb ji fees moo tax damay wax euh, amateur yi lamb yi. ne leen bu ñu bëggee jàppale làmb nañu seet ñiy jàppale làmb ñu jàppale leen waa Equivox télévision la mais tey jël nañu seen alal dugal ko ci làmb ji seet na combat yi amateur yi bëgg parce que dafa am ñoo xam ne day ne rek ah, jël mbër mële mu yomb nga jël mbër mële mu yomb nga boole leen wut ci xaalis mais yéen lii ngeen wane yéen a ngi yokk sportu Sénégal te ki yokk sportu Sénégal mooy ki seet li amateur yi sportif yi bëgg li amateur yi bëgg nga taxawal leen ko moo tax combat yi ngeen taxawal benn combat du ci combat bu ndaw. Euh, ñu def taxaw tuuti ci drapeau bi nga xamante ni moom lañ tuddi Alaaji Papa Dieng parce que yaa ngi ko wax nga ni fukki penc ak ñaar yëpp dañuy ñëw mais bu bës baa naka ngeen nar gunge ki nga xamante ni moo di seen mag indi ko stade. xam nga Alaaji Papa Dieng du jóg fii dafay kenn ci man di sama frère ba pare euh, takk sama jigéen am ak moom kon sama freer la sama goro la te muy nit koo xam ne nag buñ ko fayee borom lamb ja kenn du fa xaj bu ñu fayee boru Pape Dieng Pape Dieng seetaanul kenn ci bésam Pape xam taxamluwul kenn ci bésam bésam Pape Dieng ratewul benn yoon bésu nawlem kon damay wax waxuma communicateurs yi rek parce que géwél yi rek buñ ñëwee lamb ja lamb ji fees kon te géwél yi kenn ku ci ne alaaji Pape Dieng am na lu mu la lebal loo xam ne ci bés bi rek nga ko mën a fayee waaw ci bés bi nga ko mën a fayee rawatina nag Massata Diack Massata Diack yaayam taawu Papa Dieng bu jigéen yaay Massata jàkk lañ ko tuddee kon nga xam ne euh, lamb ja dafay lambi senegal muy footballeur yi muy basketteur yi muy handballeur yi muy boxeur yi waa lamb nag waxi noppi Ah, Papa Dieng daal tuddee ngeen ko bés boo xam ne bésu Sénégal la ñi ci woo nag àddina bépp te it di nga gis sax ñu dagg billet Europe ñëw parce que Pape Dieng am na ay wëllëre France am na ay wëllëre Italie am na ay wëllëre États-Unis am na ay wëllëre Allemagne am na ay wëllëre Espagne te am na ci ñoo xam ne bu ñu yëgee bésu Pape Dieng bi jaral na leen dagg seen billet ñëw fekk si bés bi moo tax dal ah tudde ngeen drapeau koo xam ne Sénégal ngeen ko tudde de waaw tudd nañ drapeau koo xamante ni Sénégal ngeen ko tudde muy alaaji Papa Dieng di ko ñaanal jàmm yàlla na yàlla wéral cër yi euh, papa lamb ju ñu ànd ceeg ki nga xamante ni moo di Aziz Ndiaye iwil j'adore euh, yan moo ngay yëkkati sànni ko ci moom ñu tëj sunu sunu li nga xamante ni moo di waxtaan bi euh, la clé de la connaissance d'autrui et la connaissance de soi-même mm-hmm. Abdou Aziz xale la bërki dem rek la judd ñoo ngénte mm-hmm. dafay xale boo xam ne dafa judd ci jom parce que boo amee bàyyi liggéeykat am ndeyu muñkat yàlla mën na laa defar jàmm te looloo ko dal Abdou Aziz bàyyam liggéeykat la ndeyam muñkat la ba pare nag mu am ba pare fàttewuli bokkam parce que xamewoo ku mu bokkal ndey ak bàyyi mënoo ràññee ku mu bokkal ndey ak bàyyi te loo am lu ne te mënoo caa dimbali say bokk waroo ko na am Abdou nag lii ko yàlla dénk mu ngi koy bokk ki bokkam ba pare seet ñi lompoon yoruñu mu dimbali leen te yàlla tax euh, moo tax sénégalais bu am jom bu ne ba taxawal benn industrie Sénégal gépp dañ ko war a jàppale xam nga diwlin Sador day diwlin yoo xam ne euh, euh, boo ko boo boo koy togg di ko lekk doo xëriñeeñ xam nga luy xëriñañ mhm. xam nga xëriñañ jëkk ba ci ak sa baat bi mel ni ngelaw a ci ne ah ngay géex diwlin jii nag baax na ci eh, ceebu jën mhm. parce que man dama bëgg ceebu jën fi mu ne sax bu ngeen fi toogee léegi soxna si ceebu jën la togg te diwlin sa door la ko toggee mhm. moo tax daal eh, Abdou Aziz bokk na ci xale yi nga xam ne mi ngi jàppale waa làmb mi ngi jàppale làmb te it eh, ñu nit kenn ku ci ne muy waxkat Abdou Aziz defal na la loo xam ne war ngaa mën a wax ci moom man chaque année gàmmo Tiwaawoon këram lay gàmmoo maag Ipo waaye du ñu gàmmo mukk ba gàmmo gi jeex kenn ku ci nekk dinañ jox enveloppe dinañ jox fu ñu fanaan lekk yi waxi noppi boole kook jàmm te it doom aadama lépp lu mu yor boole kook yar ak teggin yàlla mën na ko dimbali ba mu yàgg ak moom baayam alaaji ale njaay Euh, euh, marché ti leen la daan jaayee kon ki nga xam ne baayam mu nga déparé ca poobar ak xorom ak laurier ah bay bay ba ba ba ba dafi wàcc ay bato ceeb doon na sa bàyyi yomb na mais doon sa bàyyi jafe Abdou Aziz nag fexey na ba doon baayam tur wu Alaaji Ale Njaay yoroon Abdou Aziz yor na lu ko euh, yor na tur ko ëpp def def ku baax ko Alaaji Ale Njaay daan def Abdou Aziz a ngi def lu ko ëpp seetaanul Touba seetaanul Tiwaawan seetaanul Cenaba seetaanul Njaasaan fépp lay dugal alalam boole kook nag seet na Equivox télévision bu bees la bu soog ubbi mu jël alalam ne ah damay sponsoriser émission bi de damay sponsoriser waa Equivox TV bu ñëpp defoon noonu kon Sénégal jàmm rek a fi am kon Abdou Aziz ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm te yokk ko parce que euh, Baratal bu Jean Lefebvre sama rakk la dafa lu ma mas a wax dama ne ma ñoxo ma ne ko ah, mu ne ma milliard neexul ma ne ko lu tax mu ne ma boo ko yoree doo nelaw ma ne ko lu tax doo nelaw mu ne ma heure bu ne lañ la mën a yee nelaw la marché feeñ na béréb sangam moo tax doo nelaw te bés bu ne yaa ngi seet lu ko yokk doo bëgg lu ko wàññi mais Abdou Aziz lii ko yàlla jox mi ngi koy bokk ak ñi mi ngi dimbali doomu aadama yi. ah man day bokk na ci doom yi nga xam ne yàlla xam na ne du ma man duma seeti nit man mais day toog ba ci yàgg sax mu yónnee ma xaalis te duma duma ko yëg sax damay jekk ba ci rek ñu ne ma alo Abdou Aziz day moo ma boole yow def na nangam te def lu baax mënta weesu loolu te it eh, eh, yàlla dafa able ñett maye benn bu gën ñett yi mu able yàlla dafa able taar loo gën a màggat gën a ñaaw yàlla dafa able doole loo gën a màgg gën a néew doole. Mhm. Double Less bi ñi metti naa dugg ci làmb ji. mais moo jur Balla Gaye mhm. ah? yàlla dafa able alal. Mhm. boo dee minti milliardaire boo wàccee liggéey loo yoroon moomatoo ko. doom joo fi bàyyi wala jabar joo fi bàyyi. yàlla li mu maye nag moom mooy moo baax. doo nekk ci lu baax. di def lu baax. am ñu baax ñi. dëkk ci lu baax. ba génn àdduna. ñu baax ñëpp ànd ak yow gunge la ba ci yàlla mu baax ma. mu di la yóbbu fenn fu bon. Abdou Aziz daal mbaax gii. nga xam ne ci la ne. ci la juddu moom la donn mi ngi ci yàlla ko ci yàlla jàppale. amin yàlla ko ci yàlla jàppale voilà qui met fin ñu àndandoon ak sunu papa père Ibou Ndiaye baay père lan ngay tëjee ak lan ngay wax amateur ak lu làmb ñi nga xamante ni ñoo war a ñëw incha allahu rabbi le 19 fële ca euh, arène nationale. li may tëjee daal mooy benn affaire dama ne ku seppi sa loxo ci añ rek euh, euh, boo raxasoo jarul sa nga bu la neexee fompo buntu stade ba. bu la neexee na nga fompoo buntu stade ba ndax boo ko defal le stade bay rëy rëy doo am place. combat ay ñaari combat yi benn bu ci na grand combat la. boole ko ñu tuddee ko nag koo xam ne mooy senegal koo xam ne mooy Sénégal. te ñoom Abdou Aziz ñoom Gaston ñoom Pape Abdou Fall ñoom Assane Ndiaye ak promoteur yëpp dina ñëw teewe si leen parce que. da ngeen a tëgg combat yoo xam ne mi ngi woon ci xelu promoteur yi yéen da ngeen a jëkkante ak promoteur yi rek daal di jël combat yi parce que combat yi ngeen jël benn combat bu ci ne grand combat la li ñuy ñaan daal mooy nga xale supporters yi laay waxal parce que bés su ne ma taxaw ci diggu euh, làmb ji jox leen leçon de morale doomu aadama bi fa muy liggéeyee boo ko fa dee gunge da ngay yóbbaale jàmm mbëri làmb ji lañ yaakaar mbëri ci làmb ji la ñuy amee kon booy supporter sa mbër ànd ak moom ca làmb ja dangay koy wutal jàmm mais euh, euh, di gaanuwaay ci ay mbuus di ko sànni yeneen bëri wala ngay yuux yeneen bëri di saaga di sànni ay xeer def yëpp yooyu jo na jóg ci làmb làmb li ci am mooy daan ak daanu ku bañ a daanu bul bëre ku bañ a ku bëre rek mën ngaa daanu kenn ku ci nekk boo daanee tey boo lëggee defal sa xel ci daanu boo daanoo ëllëg defal sa xel ci daan ñuy woo Sénégal gépp nag Sénégal àddina la ñuy woo sax parce que Pape Dieng nitu addina la Pape Dieng eh, àddina bépp ko bokk du wax lu ñaaw du def lu ñaaw bëggul lu ñaaw eh, bo boo toogee moom bu dee waxtaan ak yow sax da ngay xam ne kii gentillesse bi na ci moom ak eh, Dakar waa gi mu doon parce que doo juddoo Medina màgge Medina yaroo Medina eh, di ndakaaru mosoo wax lu ñaaw mosoo def lu ñaaw am sa bés ndakaaru di la seetaan moo tax damay ragal ne eh, eh, ku dof doflu bala ngaa ñëw fekk Medina fees lamb ji waa Medina buñ dof dofloo Grand Dakar fees lamb ji waa Grand Dakar buñ dof dofloo Pikine ay fees lamb ji parce que Pape Dieng nitu ndakaaru la ñi ciy woo Sénégal gépp nag di gën a ñaaxaat dooma di wax nag ne làmb jii nga xam ne Equivox tëgg na ko muy lamb joo xam ne euh, moom la Sénégal gépp doon xaar ñu ngi ci woon daanaan yëpp bésu Pape Dieng nag bésu Ndiko Cuun la bésu Pape bésu Xaar Mbay ma jaaga la bésu Pape bésu Ndey Faatu Njaay la bésu Pape Dieng bésu Soda Mama la bésu Pape Dieng bésu Kiné Lam la bésu Pape Dieng euh, euh, bésu Ndey Mbay jiin ma jiin ma la bésu Pape Dieng bésu communicateur yëpp la muy garmeek Lamine Thiam dogoog mm-hmm. Thierno Ndiaye ak ñëpp bés bi seen bés rawatina élagement Hadj Mansour mi nga xam ne mooy le président des communicateur traditionnels ñu ngi ciy woo Sénégal gépp di wax ne lamb ja daal lañ ca bëgg ñun mooy mu nekk lambe ambiance maag Ippo nag liñ ca war incha allah képp ko ñëw di nga dégg ay caay caay caay ca kat at bi nag jël la. Ah, wëlbit gaa nga waxi noppi. <laughs> ku ñu dóor mu daanu. na la ngañ ubbil buntu bi nag nga ñibbi sans problème. ah kon foofu la ngañ di tijjilee buntu bi ñu daal di jaar foofu ne mes na Mbenteng Abdou Sali la woon ak père Ibou Diagne Xobay ah, di leen jox rendez-vous incha allah le 19 fële ci arène nationale waaye balaa boobu di ngeen gis yeneen bagage yeneen yoo xamante ni pour uniquement pour lamb le 19 bi la je vous donne rendez-vous très très bientôt sur Equivox